di rakki Serigne Cheikh. di rakki Serigne di taalibeem te yàlla de te suñu borom soxla ko. te suñu borom soxla ko. mu wuyu ko mu wuyu ji ko. mu daan ànd ak ñun liggéey bi mu daan ànd ak ñun liggéey bi. na xelam mi ngi ci ni yar na ndeysaan. buñ paree. buñ paree. nañ ko defal nañ ko defal. fukki lixlaas ak benn fukki lixlaas ak benn. yàlla. xare ko aljanna. xare ko aljanna. te leeral bàmmeelam te leeral bàmmeelam. ku matal rek ku matal rek ñibbi ku wàcc kay loo fiy defati ba wàcc rek nee na ndax li mu liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul lam ko liggéeyal ku làq ngërëmal Serigne Abdoul Ahad làq ngërëmal Serigne Saliou làq ngërëmal Serigne Saliou làq ngërëmal Serigne Cheikh làq ngërëmal Serigne Cheikh gaa yi baax yëpp gaa yi baax yëpp Serigne Saliou njurul Serigne Saliou njurul làq na seen ngërëm ca njurul ju njëkk ja ba pël yi di indi fitna. ba indi fitna. tam bëggoon leen a jaay bakkanam bëggoon leen a jaay bakkanam. ngir Serigne Saliou ngir Serigne Saliou. ba woykat ba naan ba woykat ba naan. yaa nga jàppaloo mbii mi mbii mi yaa nga jàppaloo. mbii mi mbii nga jàppaloo. mbii mi mbii mi yaa nga jàppaloo. màggat di pël yaa ca dàq daw màggat di pël yaa ca dàq daw. booba booba Serigne Saliou njurul Serigne Saliou njurul. moo doxoon moo doxoon volonté wu volonté wu. digganteem digganteem ak loolee. ngir Serigne Saliou ngir Serigne Saliou. tey dellu na ca boromam kuy ñëw xelkom kuy ñëw xelkom te xam xelkom dëgg xam Serigne Cheikh sa xel dana nekk ci Serigne Saliou Njurul wér na kon nag ñaanal leen ko nañ ko ñaanal yàlla xaree ko aljanna yàlla xaree ko aljanna te leeral bàmmeelam te leeral bàmmeelam muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu